Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu mbokku téléspectateur yi nga xamanteni ni yéen suivre jassi Ji TV ci bir émission bi nga xamanteni fim fi moy xam sa demb lañu am tay tegal leen sen premier numéro bi nga xamanteni Café Touba lay doon ci bir xam sa demb waxtane lépp lo xam demb la waxtane lépp lo xam tam aduna ci li fi nga mom la fi mag ñi bayyi ba tax tay ñu dalal mbokkum talibé suñu jëwriñ ci yoon wi ñu gën ko xam ci sëriñ Saliou Niang di tamit taalibe ci sëriñ Cheikh Fall ndigal mun sëñ Cheikh Fall bàyyib góor moom maam Modou saa Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridina kon Baye Saliou ñu ngi lay nuyu di la gear waaye itam di la dalal ci biir jotaay bi macha allah rabbi. asalaamaaleykum mbokk jullit ñi mbokk taalibe yi. Mm-hmm. kenn ku nek ma ngi lay nuyu sa tur ak sa sant. macha allah di Sam sek ni, nga xamne ne moom a tay. tey. macha allah waaw waaw sëñ Sam jere jeuf mam saliw mom nak nag sante tour bi dafa mag lol ndax buñ ne saliw suñu xel dem ci jëm ju tedd ja Serigne saliw mbacke ñu ñaan yalla sama borom taas ñu ci barkem waye tam di ñaanal bu baaxa baax. bo ki nga xamanteni moy khalifatul am fi tarikhatul murdiya Cheikh mohammed Muntaha. suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi nga xamante ne naal na ko liggéeyal maamam ju tedd ji sama borom yeggaleel ko ko waaye noonu ko noonu tam lañ koy ñaanalee kii nga xamante ni tam moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf ndax tey gannaaw maam Cheikh la Fall maam Cheikh Ibrahima Fall lan euh, euh, kon moom it yell na nu ñaanal ko moom itam sëñ Cheikh jëm sama borom ah. yàggal ko wéral ko euh, yéen yi xam ne yéene na ko liggéeyal Serigne Touba xaadim rasul yaakaaram yal na ko sama borom yeggale te nu ànd kook ñoom ci dara yi Seydunaa Muhammad alayhi salaatu wasalaam Baye Saliou fi ma bëggoon ñu tàmbalee waxtaan mooy fi ni koy dooree rek mooy dañuy dañu lay dañu lay siyaare li ñu bokk muy jëmm ju tedd euh, jëmm ju tedd ju baax di suñu Aziz mhm. di suñu xalifa di suñu sëriñ mhm. di kenn koo xam ne bàyyi ko na ci ñun di suñu xalifa mhm. di doomu sëñ Modou Moussa ak mam bintu jenn tay ñaan fi mu joggé mhm. yalla na ko fee mu jëm dakal fop amin barke mam cheikh dafa fe mu nek mhm. na ko dàqal fii fop mhm. ndax seigne Aziz ku bax la té seigne Aziz ku bari yermande la ci talibé té ñu ngi ñaan ci barki seigne Cheikh Fall Baye gor yalla na ko sëñ Touba ak mam Cheikh Ibrahima teeru ak maamam ba am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax moom sëñ Asis moom <laughs> ndeysaan tubaarkàlla macha allah <laughs> jërëjëf maam Saliou kon naka noonu rek leen koy mbooleem siyaare mbooleem askan wi nga xamante ne rek ñi ngi koy safoo wala ñu am yëg-yëg ci moom muy jëmm jooju nga xamante ne mooy Cheikh Abdoul Aziz Fall ibnu Cheikh Modou Moussa faal ak waajuram bu tedd soxna maam Bintu Jenn di taawu ci Cheikh Issa Jenn kon noo ngi koy ñaan baax a baax yal nañu sama borom taas ci barkeem ba moom it te yokk leeram yi fa mu jëm ci daraje Seydina Mouhamed Saliou laaj bi ma lay njëkk laaj day daal di jëm ci yow mi nga xamante ni yaa ngi ci keppaaru Serigne Cheikh Ndigal Fall ana wan melokaan la Baye Fall bi war a melowoo bu ci ndigal. asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñoo ngi ñaan ci kàttanu Serigne Touba ak maam seex Ibrahima. ndax ab Baye Fall. Mhm. roykaay la. Mhm. roykaay la. Mhm. ndax maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne maam moom meññ kuluhum di Baye Fall. roykaay la. te maam Cheikh dafa doon loo xam ne nii daa jëf. ndeysaan. daa jëfal Serigne Touba. Mhm, moo waral jëf jël ga. te a ah, ñu de suñu Cheikh Ndigal loolu lañ jàngal. Mhm. suñu Cheikh Ndigal nee na. Mhm. ab Baye royukaay la. ndeysaan. te Baye Fall. bu ne. ñu ngi ñii sax ñoo ngi naan même sëñ bi sax wax na ko neen a Baye Fall yéen ay yëbaatu ngeen ay noobul ngeen. ndeysaan ay noobul que ab Baye mhm. di joxe. Mhm. di ñaq di jëriñ. kon nag di ñaq di joxe di jëriñ. waaw nga boo dee joxe. Mhm. nekk ci jiba ba nga génn di joxe. saa su nekk da ngay ñëw fekkaat ko fa. maam Cheikh Fall daal amul morom. kon ca jëf ja nga xamante ne mooy ku jëfal yàlla yàlla fay la moom fi ne daanaka ca loola ca la tënku ta ak Baye Fall loolu moom bokk na ci doxinu Baye Fall gi nga xamante ne mooy li ci njëkk moom fi mu toll nii. waaw euh, xoolee li jëfal Serigne Touba. Mhm. ba am payoor boobee. Mhm. kulhum ngay ba nga ne Baye Fall laa. Mhm. te yàlla rek tax. ak mhm. yonent bi. Mhm. ak Serigne tubaa ak maam Cheikh Ibra mhm. kon war ngaa doxal rythme mu Baye Fall. ki nga xam ne maanaam ku ko séen. na ko bàyyi. te buñ koy ba mu lay jur. tàgguwuñ ndey tàgguwuñu bàyyi. ah kon Baye Fall boobee léegi da ngay xool rek seet xool baay Fall. mooy lan. mooy ki nga xam ne kaa ñu bokk nam mu dem ci yàlla suñu borom. defe naa mooy wala waxat allahu samadu <laughs> yàlla suñu borom képp ku bëgg a dem ci moom baa bii bu rek bunt ba ngay jaar muy maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baawul muridin <laughs> jërëjëf maam Saliou <laughs> amati na solo amati na solo mënta ñàkk ndax faaw ñu faaw ñu xus ci tuuti ndax euh, nee naa riirum Baye Fall dafa bëri ci jamono yëngu-yëngu bi bari te gannaaw maam Cheikh Fall léegi naa waxoon na ko waaye ci xel mu sell ndax damay dégg damay dégg damay dégg sang ba alaaji Seexu mi sëñ Fallou di faral di wax naan maam Seera Fall ñu naan mu ni silwise ga mu silwise woon bëggoon boppam gi mu bëggoon na boppam daan sol yu rafet yu silwise boole ci di xeeñ lu neex te Baay Faal yi tey ji def ci bëri ñoo xamante ni daanaka dañuy yor ñu tuubal ma ci ma jégguluwaat kàddu gi ndax meloog Baay Faal bi moom lenn képp lay doon waaye ki nga xamante ne fii da koy niru nirulu moo tax sax fana ñuy juum ci naan Baye faal bi fekk ka ñuy wax du Baye Fall Baye du Baye faal waaye da ko melowoo ndax am na ñu koy melowoo te dunuñu ko. waaw jërëjëf ci wax jooju ak laaj boobu nga laaj. Mm-hmm. ndax Baye Fall daa am bàyyi sa bopp am. Mm-hmm. Baye day ñàkk jariñu di jariñe mm-hmm. te yàlla rek tax. am na ñuy tilimal deru Baye Fall te du ñuy Baye Fall. Mhm. Baye Fall du jëf jël ji fi jàmbur. Mhm. Baye Fall du dem di agressé. Mhm. lan mooy Baye Fall. kii nga xam ne maam ñaqam moo ko tax a jóg. tey jël di dimbale te yàlla rek tax mais nag. am na ñuy mbuboo Baye Fall ñooñ du ñuy Baye Fall. Mm. ñooñ du ñuy Baye Fall du ñuy Baye Fall ndax ndeysaan. dañ koo melowoo rek. ñoom dañoo ñoo ngi noonu rek ñoo ndax parce que euh, maanaam li tax ñu nekk noonee. àdduna mm-hmm. moo tëradi. Mm-hmm. jamono soppiku lool. te yàqu boole ja. ñu wàcc la fi mag ñi woon. te ku yàqu nag yaa yàq sa bopp. Mm-hmm. ndax maam Cheikh Ibrahima Fall. ba ci sëñ Cheikh Ndigal daf ñuy doon ne yéen ay royukaay ngeen. Mhm. ay ambassadeur ngeen. Baye Fall daa war di sol lu set di silvissé. Mhm. nit dab la ne man ne la nangam laa bëgg nga yëkkati jox ko rek te yàlla rek tax te. bañ koo jàmbat fenn. Mhm. te boo yeewoo demal lijjanti ñëw joxaat. mais taxaw ne man Baye la ah xanaa bàyyi sa bopp. waaye bàyyi sa bopp nag moom bu muy bàyyi sa bopp rek. Mhm. di def ci loo xam ne ni neexul yàlla neexul yont bi. Mhm. te lu sëñ Touba bëggul maam Cheikh Rafal bëggu ko. mosu koo bëgg. lu sëñ Touba bëggul maam Cheikh bëggu ko. mosu koo bëgg. keneen ku defe ne maanaam dama nekk ci lii wala lee nax nga sa bopp. Mhm. danga war a jàpp fii Matar jàpp Ousseynou jàpp. ñu dooleel suñu góor jàpp ci góor góor jàppaat ci góor ba yegg fa yàlla. fa mu doon ay kàddu yoo xamante ni jëmm ju tedd ja maam Cheikh Ibrahima Fall làmp moo ko digle woon naan ne góor jàpp ci góor góor jàppaat ci góor góor jàppaat góor ba yegg fa yàlla. Hmm. ndax kenn kenn kenn kenn kenn tëbut dem yegg ci yàlla waaye defam am lu am solo da ko tudd jëmm ju doy waar sëñ Cheikh Ndigal Fall. ma seetaan vidéo boo xam ne Serigne Cheikh Ndigal Fall mi ngi koy waxtaanee xam naa ne gaañ dinañ ko ci dugal alxuraan kaamelu alxuraan la teg di ko jàng di ko firi di ci soññ mbokk taalibe yi ci jotaay ba te coow li bëri lool Baay Faal gi fi nekk xaaj bépp fi ne bu koo ci woo boo ko tegalee fi mu ne ni daanaka téereb am ma yatta mënu koo jàng léegi kooku nu mu def ak Baay Faal xam nga Cheikh Ndigal mhm. royukaay mhm. ki nga xam ne maam suñ Mbàkke Madina moo koy jàngal mhm. première ndogom mu jox ko sëñ Mbàkke Madina deuxième ndogom mhm. sëñ Abdou Lahad mu jóge fa dem ca tóokóor ba ci sëñ mhm. Cheikh Mbàkke mhm. Gaynde Fatma ci tóokóoram ba ca Daaru bi ngay gis nii <laughs> tubaarkaal la boobu miiree guñ ko yàlla def muy dox ba ñu ko <laughs> sëñ Cheikh Ndigal di royukaay ku boo xam ne nii boo ko royee mhm. jar naa roy boo ko royul gis sa moroom mu roy ko gën law demin waaw mhm. ci bu wér mhm. kon nag alhamdulilahi rabil alamina suñu xalifa bi nag moom ñoo ngi koy nuyu bu baax ndeysaan muy sëñ Muntaxa moo fi nekkal Sëñ Touba. ndeysaan. ak saa yoo xam. sukuraan ak saa eh, mm. eh, lii mm. waaw mënta ñàkk <laughs> ngontu maam Cheikh Rafal rek waaw rek rek mu daal di jeex rek Sénégal daal di <laughs> tubaarkàlla fi mu toll nii. waaw mënta ñàkk nag jotaayu ndaje murit moom mënta ñàkk Café Touba mm. ndax waaw lépp sëriñ bee. ndax gannaaw chérigé la goo xam ne wax dëgg yàlla moom moo nu ko indiloon ci tukkeem ba mënta ñàkk itam fi mu toll wax dëgg yàlla nu nu nu nu di ci barkeelu te di ko ci ñaanu bu baax a baax suñu borom wax dëgg yàlla euh, euh, euh, dool li ñoo taas ci barkeem ba moom seexul xadim suñu yaakaar waaye su ko defee rek ni ñuy def rek waaw kon da ngay xelli café gi rek nu daal di wéyal waxtaan wi ndax mel na ni fi mu toll ni am na fu nu toll foo xam ne ni dog ko sax day daal di xaw a métti waaye ñuy bàyyi waale xel rek su ko defee képp koo xamante ne yaa ngi ñuy bàyyi xel rek ñi ngi am mbégte gu baax a baax ci ci biir jotaay bi su ko defee fi ma bëgg ñu dugg fa xam naa ni fa laa bëgg ñu tënkee fa jotaay bi su day mel ni tey jii sëñ Cheikh Ndigal jamono yi ñu ngi ko doon dégg ci booru àll bu sori boo xam ne daanaka ndigal la ko fa yóbbu woon xeeti mu am ba defe naa korite fa la ko fekk ñu bëggoon xam ndigal loolu ndigal lu mu doonoon ak liggéey ba mu fa doon liggéey itam ci lan la tënku woon fi mu toll nii ndax Fall Ndiaga moom xam naa ni fu mu jóg lu ko jaral jóg lu ne rek euh, daanaka tawféex lay daal di doon ci ci ci dégg ko sax taf tawféex lay doon waxuma nag ku teew ca liggéey ba macha allah. waaw ndigal ndigal muy jëfee. Mhm. moo waral foo ko fekk. ndigal rek lay jëfe ndeysaan boo gisee mu dem ci àll bu sori boobee ñu naan Casamance di gulumbu mhm. ñaq jariñu ndeysaan ñaq jariñu ay toolu banaana la fa mhm. Sëriñ Tuubaa moo ko ñor lépp lu mujj pour dongo yi la ak sëriñ si ndeysaan fa la ko maanaam xew-xewu jamono bi ñu naan mbas. Mhm. fa la leen fekk. waaye yàlla def na ni dañu jóge Poroxaan rek dugg foofu. Mhm. bi ñu àggee tombek lii am xew-xewu jamono bi sëñ bi te ñu ne ñi nañ dem tuubaa ñii nañ toog. Mhm. Basak mu ne waaye yéen daal toog leen. Mhm. weeru koor bi toog leen fa. ndeysaan nga xam ne ndogu ya fa la leen mujj a fekk. waaw fa ñu fa la ñu fekk. waaye rakkam ju baax je di sëñ Cheikh Mbacke. Mhm. moom la jox ndigal la ak sëñ Mbacke Anta Ngunda. Mhm. ak sëñ Aliou. ndeysaan ne leen nekkal leen ma fi ne sëñ Moussa bu Siñaan demal nga Samfal nga toog. waxtu foofu gi daara yeeg bagage yi mhm. waaw sàmmaale ña fa nekk mhm. ndax bëgguñu kenn ku dul sëñ Touba te gëmuñu kenn ku dul sëriñ Touba mhm. ndax ñun Baye Fall lañu ndax maam Cheikh Ibrahima Fall di borom ndigal nekkal fii maam Cheikh Ibra ndax màkk looy looy bee ca njaareem moom moo fa nekk ca kër ga Touba Fall kër sëñ Modou Moussa Fall moo fa ne. Mhm. jaayanti nag dañoo am kilifa. Mhm. muy sëñ Cheikh Jëmb. yàlla na ko yàlla bàyyi si suñu kanam. te yàggal ko fi yàggal fi mboolum jullit amiin bi jaay maam Cheikh yàggal fi mboolum jullit amiin yaa rabbal aalamiin yàlla am na ko mën na ko. wallaahi ñu ko defal amiin yaa rabbal aalamiin waaw ñuy jël suñuy addi ak suñuy lépp di ko jox te yàlla rek tax. tax. Mhm. ku nekkal yàlla yàlla nekkal la. wallaahi ku nekkal man kaan lillaahi kaan lillaahu lahu. Ah, jërëjëf jaajëf macha allah ah, kontaan naa kontaan <laughs> su ko defee mbégte la ñuy amaat santaat yàlla bu baax a baax. julliwaat ci yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam waaye santaat bu baax a baax sunu yaakaar Cheikhul Khadim ñaan sama borom taas ñu ci barkeem ba. waaye sant bu baax a baax itam jëmm ju tedd ji nga xam ne moom lañ doon waxtaanee mooy maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridiina ndax li tax ñu dugg ci waxtaanee woon tey lii mooy nangoon nañ ci làmmiñu Cheikh Modou Fallou Fall yàlla ñu borom bi taas ci barkeel mu wax ne juróom a ngi nii yoo xam ne ñu ne ah mu ni bokkul ci Baye Fall ñu ne ko Fall yan juróom mu ni juróomi keef lay doon ñu ni ko Fall yu mu doon mu ni xeex xuloo xaru xaste ak xeebaate ñu ne ah mu ne ak Baye Fall bokk ci kon <laughs> bokk na ci fi nga ko tënk léegi mooy Baye Fall moom am na meloo manam njëriñ la wara doon ci aw ci kullu jaam bo xamanteni ni la ak tënku ci li nga xamanteni muy ndigal yi muy jot ci wasila kon suko defé dañu ñaan yalla yàlla ñu saa borom xirtal ci ñu tënku ci ndigal ba daj daj daj dajé rek kon kaddu bi ngay jéxalé rek jotay bi mhm. ndax ndigal mam cheikh ibrahim nee ndigal tiabi la mhm. bu opé du ubi té bu yéssé du ubi mhm. té boko ko yak kanar ga yàlla nañu yàlla musal ci loolee. amiin yaa rabbil aalamiin. musal ci mboolem jullit. amiin ndax ab Baay Faal bu ne. Hmm. nay jëfe ndigal. Hmm. ndigal rek. moo ñu ñor ndigal rek. Hmm. ab Baay Faal war na ko soxo te nag di la ziare suñu kii nga wax léegi muy sëñ Cheikh Oumy Mbacké. ndeysaan Balaye sax mu sëñ. Abdoulaye sëñ Fallou. Euh, magi rakku maam Marème Mbacké. mu sëñ Fallou. ak soxna ummi mu sëñ Fallou mm-hmm. waaye jërëjëf kontaan naa ci mm-hmm. loolu mm-hmm. di seen xalifa bi sax di sëñ Abo Mbàkke Falilu Mariama yal fi yàgg loolu te wér amin amin bokk ci maam Cheikh rek daf boole ñaari cër bokk ci sëñ Touba muy sëñ Fallou bokk ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci ndeyam ndey di Fall baay di Mbàkke ndeysaan ñepp naan alhamdulilahi rabbil alamin pourtant Cheikh isa Diène borom Diène ak la gën mam Cheikh ba mam Serigne Touba khadim Musaa noplo mom mhm. lañ wax demal ya kay tagge ci Cheikh Ibra ndeysaan ndax xamone numu meuna safonté mom ba yeggé ko ko <laughs> gisoo lool <laughs> machallah ndax ba mu ñëwee ci la koy ay baram da ko nuyu rek mhm. baram yi tagge ko tedd ki ndeysaan waaw jërëjëf Serigne Touba jaram maam Cheikh fa lañ koy ndar keppe jox leen dig daje incha allahu rabbi taala ci beneen jotaay ak yeneen mbokku taalibe yoo xam ne fas nañ seeti ji ñëpp kenn ku ci ne foo mën a nekk rek dinañ la seeti waxtaane li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne itteel nañu te ñor nañu ci biir xam sa démb ci biir jotaayu café gi ndax mbokku taalibe yi kenn ku ci ne dinañ la seeti waxtaan ak yow ndax liggéey bi daf ñoo ñor waaye yoon bi itam daf ñoo ñor te gàkk-gàkk yeeg tilim yi jot na tey jii mu war a génn ci yoon bi waaye kenn du ko génn ci lu dul ñun ñi nga xam ne ñoo koy tilimal wala ñoo koy gàkk kon dig daje incha allah rabbi ci beneen numéro ci biir Diassigui TV wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.